guddi fukkeel ga ak ñeent ku ca julli juróom ñetti rakka bu ci ne faatiya ak isa jaa juróom ñaar yoon mel na ne ko saraxe junni dinaar goreel junniy jaam lele junni ñu xiif te dees na nangu ak julleem ak kooram te dees na ko musal ci ayu àdduna ak alaaxira wépp te xam ne du ñu jàq du ñu tiit te dees na ko ramuloo ci ñu waroon a dem sawara lu ko soob mu yóbbu leen àjjana te desu leen xisaab